ci turu sëriñ Cheikh Gaynde mii nga xam ne tey moo fi teew teew fi sëñ Cheikh Anta Mbacke magam xalifa sëñ Modou Rokhaya ñoo ngi yëkkati ay kàddu ci euh, kon wàllu comité d'organisation bi waaye bala ñu tàmbali rek dañuy euh, jottali monsieur le préfet cant yi jóge ci sëriñ bi ah ndax yitte ji mu gis ne def ngeen ko defati ngeen ko ci bis bi nga xam ne tey moom la ñu jublu te muy bis bu mag ci Daaru Salaam muy màggalu yeeslu euh, tombe itam ak dajale yi ñu dajale ay addi yi nga xam ne tey Daaru Salaam da ko baaxoo dajale at mu jot di ko yóbbul Sëriñ Tuubaa muy bis bu am solo bis boo xam ne itam bis bu Daaru Salaam fonk la waaye bu disu yoonu murit wi ñépp ñoo ko bokk euh, sëriñ bi nee na euh, bég na ci wuyu si gi ngeen wuyu si ci réunion bi préfet woote woon waaye itam xelam dal na ci euh, li nga xam ne tey moo doonoon ay yitte euh, te comité d'organisation bi yëkkati ko te mboolem service yi nga xam ne tey ñoo fi nekk euh, ñu jël ci ay engagement wax ci seen yéene te mbir ko ne nii noonu ngeen ko waxee noonu ngeen ko yéenee tey it ndam ci daan na ngeen ci daan amee ay ndam ci at yi ko yi ko jiitu jàpp na ne da ngeen ko am ci ren ji ne na mi ngi leen ci ñaanal bu baax a baax te benn gàllankoor bañ cee am mu wax ne ñi mi ngi ñaanal suñu taxaa mu yàgg fi lool te waaye ñaanal sëriñ Abo mu yàgg fi moom tam te waaye ñaanal taalibe yi nga xam ne tam tey ñooy waajal seeni i di ko indi di ñëw di yeeslu ci ci kër ci ci wetu kër sëriñ ci sëriñ bi waaye tam di eh, fàttaliku jàmbaar ji mag joojee mu sëriñ Modou Rokhaya neen taalibe yooyu ku ci nekk yàlla na suñu borom yombalal la sa addiya ba nga mën a ñëw joxe ko nanga ko yéenee delluwaat sa kër te dara du la gàllankoor te it liggéey bi nañ ci daan amee ndam yàlla dimbale ñu bañ am ko ci euh, ren ji ndam lu ko ëpp. préfet daal euh, sëriñ bi nee na mi ngi bég ci taxawaay bi euh, gis na ne itam wax dëgg yàlla dara desul ci seen wàll li ngeen ci war a def lépp def ngeen ko te ku ko war a yëg yëgal ngeen ko ko. li ngeen war a jël ci ay doléance itam nee na da ngeen ko topp do nañ ko yéenee lépp ñu ñu gis ko nee daal mi ngi ci sant bu baax a baax a baax a baax te ñaan yàlla luñ ci luñ ci taxaw rek suñ borom yàlla na ko nangu gën gaa kaweeg nangu te ñu fekk ay déwén yu déwén déwén loolu daal la waxoon ne nañ ko jotali ci mbooloo mi di euh, yees yeesalaat nag ak woote ci mboolem taalibe Daaru Salaam yi waaye mboolem taalibe euh, mbokki mbokki jullit yi ak euh, mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk xam ne bis a ngi nii boo xam ne bis bu am solo la boo xam ne te nit mën na cee yokkoo ba faw te kon na ci ñëpp bàyyi xel ah mu neex yàlla bu ñu àggee le 6 janvier ñëpp dajawaat Daaru Salaam ñu ko daan baaxoo def joxe addee yi waaye fàttaliku jàmbaar jooje sëriñ Modou Rokhaya euh, euh, ci ci ci li nga xam ne tey moom la fi euh, yeesal ci dëkk bi ba nga xam ne tey kenn dutu ko fàtte ci yoon wi muy lan mooy joxe addee yu jëm ci kër sëriñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.